asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien di ñu waxtaanee présidentielle bu atum 2024 bi ñuy waajal suñu réew rawatina nag taxawaay bi nga xam ne moom la ci njiitu réew mi am ci taxawaay boobu boobule daal dafa mel ne li ko tax a jug mooy fexe daal ba ñi nga xam ne dañuy yootu place am bi la daal mën a xàddi ak lu mën a am ndax li ab calcul politique la wala jaay muus ak lu mën a am daal waa Sud Quotidien bi nga xam ne ñoo samp laaj bi la daal di xam le ne fi mu toll nii kenn mënul wax wax lu leer ndax président Macky Sall dana amal ñetteelu candidature am am déet ci atum deux mille vingt quatre ak lu mën a am daal président Macky Sall mu nekk candidat parteem wala coalition Benno bokku Yaakaar lii yëpp daal mën na kaa arrangé li ko waral mooy lu ñuy gën a jege atum 2024 dina tax ba ñi nga xam ne daal ñu ngi ruumandaat wala ci dëgg-dëgg daal seen xel daan ne ci wuutu président Macky Sall ci bopp réew mi te ñu faree ci parteem boobule daal mbir yi du yomb dara ngir ñoom ndax taxawaayu njiitu réew mi daal li ko wund daal mooy fexe ba ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaaleem wala ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom ci wàllu politique bu waxtu ba jotee daal du ñu mun lenn lu dul daal ànd ak moom ci sàkku téefam maanaam daal am ñetteelu mandat ci suñu réew moo tax suñu naataangoo bi fare ci avenue Bourguiba di artu ne loolu daal du yomb dara ci ñooñu lee ñu des ak njiitu réew mi jëmale ci ñetteelu candidature am bi ak réunion bi nga xam ne moom la secrétariat exécutif bu APR doon amal ak les échos Macky daal daa bañ lànk carré nit du ci àddu benn yoon ñu bëri nag moo doon seen sàkkuteef ci boobu boobule réunion waaye Macky Sall bañ na ni kenn daal mënu ko wax fi muy jaar mu teg ci ni bu yeboo daal ñu fexe ba bopp réew bi nga xam ne ci la ñu nekk ñu ngoy ci te it sax si bu baax a baax lii ñëw ëllëg nag moom yeggaguñu ca ñu des ba tey ci wàllu présidentielle 2024 boobule ak waa réew mi quotidien di xam le ne nag mun nañu ne pré campagne bi daal door na te waxtu wa jatul nemmeeku tour bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko jiite parti Pastef les patriotes di amal ci jamono ji moo ko fi firndeel moo naam daal di wàcc ci terrain bi fexe daal ba askan wi bàyyi xel bu baax a baax nit ñi jëm yeneen i leaders yi yeneen i parti politique yi ñoomi it danañu def ni ni mel ngir daal bañ a am mbetteel ci kanamu askan wi. ba tey ci wàllu politique waa Vox Populi ñu ngi ñuy yéegee ne waa Jamra daal fi mu toll nii lenn leen soxal mooy daal rattaxal diggante Macky sàll ak Ousmane Sonko ñu ngi ciy dox ay tànk ngir jubale leen. waa l'observateur sekk waxtaan bu yaatu yaatu ak Moustapha Diop juróom-ñetti at ginnaaw yi nga xam ne daal mi ngi teew ci gouvernement bi mu waxtaan ak ñoom ci politique bi nga xam ne moom la ñu lal jëmale ci wàllu industrie suñu réew ak milliards yi nga xam ne moom lañ def ci secteur bi ak it jeexitalu mbas mi ak it guerre Ukraine bi loolu yóbbee ñu ñu waxtaane wàllu koppar ak les échos bi waxtaane loi de finance initiale bu atum 2023 mu dellu si baax baax ci koppar bi nga xam ne moom la ñuy jox waa présidence ak wàllu njënd meeg njaay mi ci loolu leen la ñuy des ndax soxal na loolu ëttu yéene kaay yi ñu ndool bu ci mel ni Vox Populi muy xamle ni kii di Amadou maam Diop bi nga xam ne mooy président assemblée nationale daal mi ngi toog ci lu ëpp ñaax fukki milliards yu teg ci kopparu CFA ndax budget assemblée nationale dafa yokk Amadou Ba di premier ministre na nag moom mën nañu ne moom it mi ngi toog ci koppar bu am solo ndax xayma nañu ko ci lu ëpp ñaar fukk ak juróom-ñeenti milliards ci kopparu CFA ci jamono jooju it Idrissa Seck waxul dara ndax moom it daal dénk nañu ko luy tolloo juróom-ñaari milliards ci kopparu CFA waa Vox Populi ñu it soxna Aminata ngi Ndiaye bi jiite conseil économique social et environnemental budget atum 2023 boobu lañuy ñuy des ak bés bi le jour rawatina nag lépp lu jëm ci wàllu subvention yi ak wàllu may ne nag li waral boobu la tànneef daal mooy fexe ba askan wi rawatina njël yi mën a jënd li ñuy jëfandikoo saa su ne bor bi nag moom nguur gi daal mooy seet nu mu koy doxalee tribune di waxtaane wàllu koom-koom tey jile rawatina coow li nga xam ne moo aju ci pétrole bee gaz bi ci suñu réew rawatina nag contrat d'exploitation yi nga xam ne daal ëlëm na ñu bëri kan mooy wax dëgg bi ci diggante Ousmane Sonko Abdou Karim na ak Thierno Alassane Sall loolu lee waa tribune ñoo koy laaj balaa ñuy am tont li nag ñu ngi xam ne lu mën a am suñu réew daal moo ci nar a perte ñu des ak suñu réew ak ministre bi ñu dénk wàllu biti réew ak sénégalais de l'extérieur yi di maître Aïssata Tall Sall muy xamal le soleil nii Sénégal dëkk bu wóor la am na gànnaay ya war ak kii daal dogu na lool yooyu li kàddu nag maître Aïssata Tall Sall mi ngi ko yëkkati ginnaaw gi ñuy waajal juróom-ñetteelu ndaje bi nga xam ne moom la ñuy amal ci Ndakaaru mu jëm ci wàllu jàmm ak ci wàllu kaarange ci l'Afrique te ñu fas yéene amal boobu la ndaje ci diggante ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bu ñu ne jàpp ñaar fukki fan nag juróom bi ci jamono jooju nag libération moom di dellu si ci lu doy waar li nga xam ne moo am ci njokkeel ci Kaolack ak néew bi nga xam ne moom la ñu fekkoon ci biir àll bi xam nañ kan la Fat Samb lay wuyoo fukk at ak juróom-ñaar la am te dëkk ci Kaolack dafa réeroon ay mbokkam ñu siif ko ba pare nag libération di ñu xamal ne néew bi indi nañu ko ci ndakaaru ngir amal autopsie bi ci néew bi nag fekk nañ ci ay gaañu gaañu yu takkoo takku ñu des ak waa libération bi ñuy waxtaanee li xew fële ci consulat bu France ci Sénégal ak trafic jëmale ci wàllu visa dig nag nërmeel na benn réseau boo xam ne ay réew yu bëri ñoo ko sékk ci mu toll nii ñaar ci ñoom nag teg nañ leen loxo tàggat yaram dañu koy dóor ak waa Sadd muy waxtaane ba tey wàllu ballon door France football di xam le ne nag lan la Sadio Mané war a def daal ngir mën a jot ci boobule ballon door li ko war nag muy fexe daal ba am ay ndam yu am solo ak waa Bayern tekki daal am ab mondial bu mucc ayib ak gaynde yi ñu des ak Sadio Mané soxal na loolu yit waa Sud Quotidien ñu dellu si si jaar-jaaram li ko dalee bàmbali ba jàpp Bayern bi nga xam ne ci jamono ji fa la nekk sat di waxtaan it wàllu Premier League bi rawatina jongante gu am solo bi nar am ci diggante Manu ak Tottenham tey jii ci ngoon Koulibaly ak Chelsea nag ñoom fas yéene cee am taxawaay gu am solo ñu des ci Angleterre ak waa record bi ñuy waxtaanee ndaje ci diggante Brentford ak Chelsea bu ngoon jotee ni Ghana ak Everton ñoom it li leen di xaar di yomb dara suñu lomb sekk waxtaan bu yaatoo yaatu tey jii ak ki nga xam ne ab mbër la woon di Mouhamed Ali muy addu ci combat ci diggante Siteu ak Papa Sow ne combat bi kenn dootu ko fàtte ci wàllu lomb ci suñu réew waa suñu lomb di xamle ne booy sëy ak Zoss nag mooy ñaar ñi nga xam ne daal ñoo taxaw temm ngir jàkkaarloog Siteu ak Papa saw lii moo gënoon fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour. Présidentielle 2024, maquiller la stratégie de l'usure. C'est le titre qui barre la une du quotidien du groupe Sud Communication, Sud Quotidien. Calcul politique ou ruse, quoi qu'il en soit, le flou entretenu autour d'une éventuelle troisième candidature en 2024 pourrait être favorable au président de la République Macky Sall en tant que candidat de son parti ou de la coalition Benno Pour cause, Plus on s'approche de l'échéance, plus les taux se resserrent autour des éventuels candidats, supposés ou réels, dans son camp. Une véritable stratégie de l'usure, savamment orchestrée par le chef de l'État pour tenir à carreau ses alliés qui ne pourront que constater les dégâts et contraints à se plier à l'accompagner dans sa volonté de briguer un troisième mandat à le risque et péril Alerte le confrère de l'avenue Bourguiba. Restons avec le président de la République et par ailleurs président de l'Alliance pour la République, Macky Sall, avec les échos. En réunion du secrétariat exécutif de l'APR, Macky refuse de se prononcer sur sa candidature. Le confrère signale que beaucoup d'intervenants lui ont demandé de déclarer sa candidature. Et voici sa réponse. il dignette. Personne ne peut m'imposer un agenda. Et il ajoute, c'est un parti qui a vocation à conquérir et conserver le pouvoir, pas une personne. Donc travaillez à conserver le pouvoir. Le reste on verra, a confié au secrétariat exécutif de l'APR son président, le président de la République. Restons avec son gouvernement, notamment Moustapha Diop, la parole libérée, qui accorde à l'Observateur la première grande interview en huit ans de présence au gouvernement. Le confrère revient en détail sur ses vérités sur la politique industrielle du pays, les milliards injectés dans le secteur et l'impact du Covid et de la guerre en Ukraine. Restons avec la présidentielle 2024 avec Réumi Quotidien qui relève une pré prématurée. Avec le Nemekou Tour, Ousmane Sonko a inauguré une forme de pré-campagne électorale bien avant la lettre. Il s'agit d'ores et déjà d'investir le terrain et préparer les populations à sa candidature annoncée. Dans les prochains jours, beaucoup de leaders vont devoir investir davantage le terrain, ne serait-ce que pour ne pas se laisser damer le pion auprès des populations. Cela, Réumi convaincus. Justement, restons avec Ousmane Sonko, avec Diamra qui songe à une médiation. Macky Sonko, cette réconciliation politique nous est comptée par Vox Populi. Restons avec Vox Populi qui s'intéresse au projet de loi de finances pour l'année 2023 avec ce que pèse la présidence, l'Assemblée, la primature et le Conseil économique, social et environnemental. D'après le confrère, Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale, est assis sur 20 milliards 758 millions de francs alors que Amadou Ba le premier ministre est lourd de 29 milliards 451 millions et Idrissa Seck gère un budget de 7 milliards 541 millions 40 mille 284 mille francs CFA. Parlons toujours du budget 2023 avec ce dialogue indirect avec le FMI sur les subventions et l'endettement, avec les recettes de l'État, avec Bousby le jour. Les subventions, c'est le choix de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et l'endettement, c'est un choix de politique économique. D'après Bessuit le jour. Tribune également s'intéresse à l'économie ce matin et revient en détail sur la polémique sur le pétrole et le gaz du Sénégal, avec cette grosse interrogation sur les contrats d'exploitation. Le confrère s'interroge où se trouve la vérité entre Sonko, Abdou Karim et Thierno Alassane Sall. Il n'a pas manqué de relever que les contrats sont contestés et que le Sénégal est le grand perdant. Restons avec le Sénégal, notamment avec son ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en l'occurrence Maître Aïssata Tall Sall, qui s'entretient avec le Soleil. Elle déclare Le Sénégal est sûr, armé et déterminé. Il a tenu ses paroles en prélude à la huitième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique prévue les 24 et 25 octobre prochains. Aïssata Tall Sall révèle également que cette année, trois chefs d'État de pays lusophones seront les invités d'honneur. Passons à présent avec libération à ce crime abominable de Fatou Samb. Le corps sans vie, retrouvé jeté dans la brousse à Ndiokel, a été identifié. Âgé de 17 ans et demeurant à Kaolack, il a été enlevé sauvagement, violé, puis tué. Le confrère n'a pas manqué de révéler que plusieurs traces de blessures ont été constatées sur le corps sans vie acheminé à Dakar pour une autopsie. Restons avec Libération qui informe sur ce trafic de visas au cœur du consulat de France au Sénégal. La DIC neutralise un réseau international. Deux suspects sont déjà placés en garde à vue. En sport, Sat le quotidien du sport nous reparle du ballon d'or France Football avec ce qu'il faut à Sadio pour toucher le Graal. Il faudra rafler tous les trophées possibles avec le Bayern et réussir un mondial historique Avec les Lions, le détenteur du prix Socrates intéresse également Sud Quotidien. De Bambali au Bayern, la longue marche de Sadio Mané. Restons avec les Lions du Sénégal après Sadio place à Koulibaly avec la rencontre en Angleterre prévue à 18h30 entre Brentford et Chelsea. Rencontre qui intéresse record. Ghana et Everton encore en voyage périlleux. Record renseigne que pour le mondial 2022, blessé et forfait, Niakhaté n'ira pas au Qatar. Mohamed Ali se prononce dans les colonnes de Sunulombe sur le combat, cite Papa Sow. Ce combat restera dans les annales d'après l'ancien lutteur de l'Ukiriwalo. Sunulombe renseigne que Boisei et Zos sont les deux adversaires communs de Site et Papa Sow. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.